du ma jox kenn ndombu tànk man du ma signal kenn benn décret boo xam ne doo jaar gi samay waaw koo xam ne heure bi ñu toll cinq ans yu bees yii amoo ci yéene jàppale président lu dul poste bay uur pour dimbale ko say militants yow ak say alliés ëllëg moo tax nga di ko def dama lay teel a génne ca post ba parce que yaa ngi lor Sénégalais bi yaa ngi parce que dootul liggéeyal sénégalais cinq ans yëpp lu am lu ne da koy dégale pour boppam ëllëg wala mu jox ko ay nitam yoo xam ne pour ñu ànda ba mu ëllëg te poste bi loolu tax ko jóg di tax a jóg poste bi moo ñu moo ñu gunge ko ci li ko sénégal yi fal yaakaar bi ñu am ci moom mu fal ko ba loolu am réussite total bun képp koo xam ne gis naa ne yaa ngi ànd ak président feeñal tey sa ambition <laughs> dama ne na la président te jox la décret bu mu xaar suba bu mu xaar ngoon mm-hmm. bu mu xaar suba bu xaar ngoon na la génnee rapidement parce que su ko deful rek ëllëg ci kawam nga jëm yàqal ko te porte mi war a génnee de dafa nekk grande porte encore même bu génnee ba pare sax ah lan ma ko war a protéger encore lan ma ko war a téewaat encore téye gannaawam xam nga ne mos bu ñuy xam nga ne moos euh, euh, africain yi yow yaa gën a xam africain yi mel te xam nga euh, nguur yombul bon li ko war mooy mu ut équipe mu dëgër li ko war mooy mu defaraat parti bi allié baxna baxna lol allié lu bax lu rafet la waye comme euh, bo ci bu lu cee la boole nga am ci équipe bo xam ñu la gëm la équipe bobu doole leen te jàppale leen. troisième mandat bi daf ko war a def. Oh, euh, ci ci lima ma yaakaar war na ko mëna def normal suko mom suko bëggé waye bëggee mu ngi dépendre ci mom mu bëgg ko né am na droit bi amana nag su bëggul ñun bëgguñu ko waye heure suko bëggé dañu bëgg ko nak dina ko ci jappalé bu baax parce que lima gis rek moy dox Sénégal. li ma euh, li ma gis rek mooy Sénégal am ci jàmm te boo demee ci kilifa diini yi ci Sénégal lépp boo leen laajoon tey kenn ku ci nekk ci ñoom amoo benn xarab ci président Macky Sall ndax kenn ku ci nekk gis nga loo xam ne président def na ko sa dëkk jàppalee ko taalibe yi muy tarixa tijaan muy tarixa murit muy tarixa xaadir muy tarixa laayeen muy tarixa bu mën a doon ci Sénégal amul sa kër gis nga fa loo xam ne barki démb rek gis nga li mu def ñeseen man de pare naa ànd ak moom ci loolu ah, ah. man waxuma keneen nag keneen kenn ku nekk ak sa gis-gis parce que man li ma intéressé man mooy Sénégal dox baax ñu liggéey ko ci liggéey ko ak suma moment liggéey ko ci lu baax liggéey ko ci yoonu baax fexe Sénégal émergent fexe li nga xam ne moo fi métti mu sedd fexe li fi fi leen demoon mu leer fexe li ñàkkoon mu am Sénégal yi dund ci dund bu baax man lii ma gën a li ma kontal ay présidents yu dul jeex te bon donc bu nekkee mu ngi ci moom te mu te mu ngi remplir conditions yooyu dama ne bon pourquoi ñun ñoo ko war imposé imposer Dakaractu seen euh, site bi site la bu am solo. boo xam ne senegal yëpp dañ ci bàyyi xel bon ma gën leen a dénk rek heure bu nekk rek ngeen gës bésu ak ci yoon bi bi mu war a jaar ak yoon bi muy jaar yéen a ci ndax su ngeen ci nekk toon kon du ma leen ci fekk waaye nag fàttaliku dana tax nit jëriñ fi ngeen sikara tan fol moom i